Euh, maître Abdoulaye Tall di euh, kenn ci avocat yu Ousmane Sonko nga xam ne démb euh, teg nañu ko loxo li ñu koy toppee bokk na ci vol ak appel à l'insurrection maître ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ngoone. ndax tey jot ngaa gisante ak sa client ginnaaw ma ngi ci garde à vue. waaw tey xëy naa pour gis ko gannaaw boo ma déplacé wu jóge ba Mbour ba ñëwee dañ ni ma mënoo kaa gis laaj naa leen lan moo ko tax lan moo ko wundu ñu ni ma ay instruction lañ te may ñu benn avocat mu gis que parce que il est en position de garde à mm-hmm. nee naa leen nag ñëw naa fi bii guddi am naa entretien ak moom mais ça n'empêche pas en tant que avocat ma ñëwaat pour gis que pour m'enquérir de sa situation ñu ne ma les instructions les instructions sont des instructions mooy ñu ko gis mm-hmm. je dis que c'est une violation même de liberté de travail c'est une entrave même liberté de travail mm-hmm. et je compte même élever cette de cette entrave à ma liberté de travail est perpétrée par les agents de l'État. mënuma nangu ay nit di def seen liggéey ñoom en tant que OPJ man en tant que avocat may ñëpp def sama liggéey ñu am empêché ma ko loolu duma ko nangu tey te duma ko nangu ëllëg. bañ bañ ko defee nag j'ai pris acte et puis bonne note et informé et le pool d'avocats et également le parti auquel je milite. d'accord loolu moo nekk xibaar bi euh, dinañ ko dinañ ci dinañ ci dinañ ko topp nag. waaye li ci am solo ba am solo rek mooy ñoom des fois dañuy juum ci gis-gis le droits de la défense sont absolus les droits le droit à l' assistance est également absolu nit ki mën nga ko organiser entretien ne c'est pour trente minutes durant toute la durée de l' enquête mais mënoo ñëw taxaw nekk avocat bi amul droit ñu di ko gis. am na droit sax yenlu ak moom am na droit topp di xool situation te nit ki nag ak situation bi ñu toll nii. nga xam ne dañoo war a saytu wér gi yaramam dañoo war xool gannaaw ba ñu xoolee ndax lekk na wala naan na na mu fanaanoo ba xam ndax jar nañ jël ay mesures wax seen famille beeg yooyu yëpp ak ay jege ñaaleem loolu moo tax ñun ñuy ñëw di jaabante parce que loolu yëpp si ay droit de la défense loolu yëpp si ak ak yelleef doomu aadama la. tey nag désolant ma ñëw ñu ñu ñu ma gis ko. rafetlu ma ko waaye tamit duñ dinañ ko topp ba ba ba li ñu yoon may. parce que lii warta amati lii mën na ñëw da ngay def sa liggéey nga da ngay empêcher keneen mu def liggéeyam. voilà euh, nañ la ne euh, mënoo koo gis ñu ne ay instruction la ndax wax nañ ne euh, boobu la instruction fan la jóge waaw ñooñu xam nga seen i ak seen i pratique ñoom duñ la wax fu mu jóge dañuy si am solo ba am solo rek mooy ña ko def ña la ko wax am nañ ay supérieur duñ la wax seen supérieur mais ñu ngi si famille judiciaire bi xam nañ ñu seen supérieur parce que bu la ko moo nekk supérieur direct immédiat lieutenant bi commissaire moo nekk supérieur am la commissaire mbokk moo nekk supérieur am directeur boobu ministre ministre bi le premier ministre ak le président de la république kon mbir mi leer na maanaam lu ñu toggee sa kaw la pour jéem a essayer de persécuter wala di jéem a intimider loolu jàll mhm. loolu laa wax ne du jàll autant bu leen neexee ñuy jéem nag di violer ay droit Ousmane Sonko mais autant tamit ñu te am taxawaay taxawaay boo xamante ni nii ak xam ak yelleef Ousmane Sonko pour ñu respecté ko ñoom lañ def la ñuy def rek waaye la ci topp ñoom duñ ko xam l' mooy def nañ la ñuy def man jéem nañ ma empêché ma liggéey man dinaa def sama liggéey ci nii wala ci ne dinaa jël mbir mi yóbbu ko foofa nga xam ni foofu lañ koy attee pour ñu xam ni man sama liggéey duñ koy ñoom seen liggéey duñ koy def war a ñu empêché di def liggéeyam d' accord euh, maître Abdoulaye Tall ñu ngi lay euh, jaajëfal. jërëjëf. mu nekkoon euh, maître Abdoulaye taal ñu dégg kàddu yi nga xam ne nag daal dina koy wax ginnaaw bu mu ñëwee ngi xool ki nga xam ne moom mooy client wam te gisu ko nee na nag dina continuer def li nga xam ne moom mooy liggéeyam.